أرسل رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله alxadaratu malikiye yi ginnaaw bi ñu sante yàlla ñu ngi julli ci sangu sangu yi ñu saydul awalin wal axirin sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam di leen siyaara di leen baalu àq di leen baalu àq di ñaan sunu borom azza wa jalla yal yàlla boole baal di nuyu Alaaji Jib Fay moom yàlla teg ci kanam muy président di nuyu Alaaji Mouhamad Dem coordinateur di nuyu kilifa yi nekk ci biir yépp rek di jéggulu tamit gëj ñanoo dégg sunu kàddu bi ñuy bëgg tabaski lañ fi mujjoon a def waxtaan waaye ay ngànte yoonu daboon rek loolu la woon waaye du woon dara waaye ñu ngi leen di siyaara yéen ñépp fu waay nekk ñu ngi lay siyaara te la baalu àq di ñaan tamit xew-xew yi nga xam ni ñoo fi jaar yépp rek muy ay mbokk yu wàññeeku ñu ngi koy jaale ñëpp di ñaan sunu borom xas ba jàlla moom mi yore yërmandeyam di yërëmaate yal na yàlla yërëmal nu suñu way dawle yooyu yal na yàlla attal leen si yërmandeyam si barke Muhammad alayhi wa su ko defee mu mal ni tey xam naa ni ñuy ñëwaat si rekk eh, sunu dars bi lenn rek si wàllu ay masala yu aju si wàllu islam mooy lu jëm si lan mooy waral julli ak ñàkk julli ki kay def lan moko sama na fek ah mu ni na ay leso yu fi jaaroon ci walu làpp sunu ustaas yu bax yi nga xamni ñu ngi ci biir njàngale di jangale njàngale mu rafet wax deug yalla ñoomit dañ leen ñaanal yalla kenn mënu leen fay ndax njàngale mu rafet na leer na yalla yalla fay leen Ah, malni ustaz mandou defna bo Mandaw mu ngi doon waxtaan ak yasa aju ah mu malni kon ba tay duggugun ci julli ay lab lam doon ak ay sunna yak yasa aju yépp daal kon ba tay duggugun ci julli kon tay nak limu bëgg a tout rek moy lan mooy waral nit ki julli wark ak ñàkk julli nit ki lan mooy ab atteem incha allah ah mu nii ñaari téere yi fi xëy dañuy jàngale di wax ci walu julli lan mo koy waral muna wul wujubiha khamsatu shurut al islam wal bulugh wal haqqu wa irtifahu dami al aid wa nifas wa xuduurul waqti salat kon mu mal ni nit ki fay am fo xamni bu fa agge julli da kay war ndax doomu adam bi bu dee julit ba xasse ba maso rek waaw re gént wala mo gis ay walu kawaram bu boobaa nag bu dee dix-huit ans mu am góor la wala avant mu fay àgg sax xañ na gis na ay liy waral masoor mu am jigéen la bu dee quinze ans kazalika naka noonu foofu ba fa yeggee nag julli da koy war bu jullee sunu borom xasa wa jalla fay ka su ñàkkee julli te amul benn ngànt day am bakkaar moo tax mu ni bokk na si la koy waral mu ni juróom la ginnaaw nit ki bu nekkee islaam ndax ki nekkul si islaam moom julli waragu ko ndax moom gëmugu ko mu ngi sa leneen waaye mu ni nit ki il faut tamit day nekk islaam su ko defee ba sa tamit mooy nit ki day mësuur comme ni ko doon waxee léegi waaye tamit tey fekk nit ki am xel kon bu boobaa koo xam ni majnun la mooy koo xam ni xelam nekku fa lu mal ni dof ci baat bin baat bin ko waxee yan ñu ngi koy jéggalu koo xam ni xel mi yàlla dafa muur xelam kooku ah julli waru ko ak ki nga xam ni dafa nekk jigéen yor ay deret yi lu mel nii ay ay ay ay ay wàllu mbaaxam bu jamono yi mu koy dikkal bu boobaa tamit julli da koy wàcc ak ki nga xam ni dafa am doom moom it eh, deret yow yay génn si moom bi jeexul tamit julli da koy wàcc moo tax tamit eh, nit ki li tax julli war mooy day nekk islaam mu mësoor am xel seet si deret yi mbërëg seet si deret gësin su ko defee tamit waxtu wi teew ak xaar ba waxtu julli wi jot nga julli yii bokk si yi nga xam ni mooy waral julli su fekkee ni tamit nit ki julli war na ba pare nag moom xam na ni julli war nag waye jurum yi ñu wax dajana ci mom xel ma ngi fi mu ngi ci l'islam amul ben ngant bu ko tay julli kon ko bu wu rek yarab l'islam day tegu ci kawam ah legi Nak fekke fekkee ni dañuy l'islam ndax bu day ñun sunu l'islam danoo jël yi atté di ko jëfe yeneen àtte yi tamit ñu jël ka bayyi ka teg ko ne ngir xagna amna ci loo xam sunu mbiram borom la dañ koy bayé ak moom ci waxin ndax lepp sunu borom moom moko yor waye comme ñun atté yi ni jël di ko ak yenen yi nga xamni dañ màndu ñun ñëpp bàyyi noonu te yàlla wax salaam sa wax xam ne tey bu doon lislaam lislaam dañ doon attewoo carrément kon chaque jour at yooyu day daw kon ki nga xamante ni si julliwul te ma xam ni moom julli war na ko bu boobaa day am yar boo xam ni dakay koy dal moo tax képp koo xam ni nangu nga ni julli war na nangu nga ni julli war na waaye danga taxaw lànk ni doo ko def wala nga xam ni julli war na waaye ki ko war a def nga ko doo ko fi defe walay ponk yi lislaam nga xam ne mooy ponk juróomi nga xamni ni lépp war na nga lankani do ko def wala nga ni wala kenn du ko fi defe wala nga ni damay def yi duma def yi bu dañi atté wal islam bu boba day am yarbu dal sa kaw motax mu ni fa man jahada wujubaha aw say min wajibatiha aw say min min islam al alxamsa فهو كافر مرتد يستطاب ثلاثة أيام فإن تاب وإلى قتل ومن أقر بوجوبها وامتنها من فهلها انتزر إلى أن يبقى من وقتها ضرورية مقدار ركعة كاملة فإن لم يسل قتل بالسيف حدا moo موني képp koo xam ni comme ni ma ko waxe woon léegi yow kat da ngaa jalgati lenn si war si wàllu islam wala xam nga ni lii war na wala nga nangu dara bàyyi lenn li nga ni lii nangu naa ko si lislaam waaye lii duma ko jël si lépp di ay atte yu suñu borom teg ñu ni bu boobaa nit kooku loolu ku ko def rek kafir nga maanaam kooku dafa murtat murtat nag buñ ko waxee mooy ko xam dafa nekkoon islam ba si yàgg mu nangu lenn li bayi len na li waaw lank ni duma julli wala asaka war ko mo lank duma ko joxe wala ajma ko wala yeneeni bu fekkoon dañuy attewal islaam ñu ni ko def lolu dafa murtad das kay muñal ñetti fan bu fekke disson bu mu jël delu ci ginaaw bu ci delul ginaaw ñu ni bu boba ki nga xamni moy attakat bi da kay ray waaw da kay ray lislaam da koy reylu wala benn mu xam ni lii kat moom xam na ni lii war na waaye moom dañuy kenn du ko fi defee mu ni bu ndee àttewul islaam kooku tamit dañ koy may ba waxtu wi dem ba su daruur ya bu demee ba nga xam ne la destar daruur yi lu toll ni ràkk te nanguwul a julli bu boobaa mu ni xuttila bi say fi xaddan dañuy dan dañuy dagg baat bi dañ kay rey dagg baat bi këtit kooku loolu mooy ab àtteem ki nga xamante fii si nanguwul a julli wala wala mu ni kenn du fi jullee ah, te am xel mi nekk fi julli war ka mu mosóor amul benn ngànta waaye li ko jàpp mooy bànneexu bakkenam ak ak weddi ak bew bu boobaa lislaam da kaa lislaam da koy waaw fa in lam yusalli xuttila bi sayfil hadd mu ni ki nga xamante si tamit nanguwul a ne la waaye nanguwul si àtte lislaam yi benn wala daa jël yi bàyyi yii wala mu lànk ne di julli mu ni kooku bu ko bu yoon reyee bu ko yoon reyee des na ko jullee ndax loolu mu def liñ ko def mooy ab atteem ndax mooy ab atteem ndax boo julliwul am bàkkaar wala lànk gi nga lànk ba ñu julli murtad ra maanaam atte gi lay ate loolu mooy waral bàkkaar bi wàcc la mu ne nag moo tax même bu ñu ko rayee tamit das koy jullee ndax julli la ndax àtte rek moo daal ci kawam mu ngi mal ni ko ku ku def lu ñu koy dóor yari yoon waaw même dóor dóor yi lay dóor mooy teggi bàkkaar ba waaye teewul ba tey jullin nga moo kooku lànk tamit ah, ni julli wala kenn du fi jullee moom it même buñ ko rayee tamit dañ koo war a jullee moo tax man ko war a jullee moom waaye nag même buñ koy jullee sax nee na duñu ñi duñ xool boroom ngëneel yi si waxin si déggin duñ xool ñi nga xam ne ñoo gën a yiw waaye dañuy xool euh, ñoo xam ne rek euh, ñuy euh, ñoo ñoo ñoo ñoo lii na ñoo xam ni maanaam ñu xaw a yem la nii rek ñoom ñoo koy ñoom lañ koy jox rek après ñu julleek waaw waaye mu ni même des na ko rob tamit fa ñuy rob jullit foofu lañ koy rob foofu lañ koy rob waaye nag même buñ ko suulee tamit mu ne ab bàmmeelam sax bunuñ ko buñ ko jal nan ko suul noonu rek maasa la ko bàyyi ko noonu ki nga xamante ne si daa lànk ni moom di julli te xam ni julli war na te amul benn ngàtt waaw kon gis na ni ñàkk julli baaxul te addis bari wax na si diggante jullit ak yéefar lan moo leen tàqale mooy julli nit ki bu dee julli yaa ngi lis nga waaye soo julliwu rek dugg nga ci kaadaru yéefar te jëfi li ñuy bari bari man nga boo doon génn asaka di woor di aj màkk di def leneen sa yoon nekkul ci julli sa loolee ngay def day mel ne du dara ndax lay fondement ba defoo ko ndax fon tabax bu amul fondement du taxaw te islaam ginnaaw ba nga seedee baati seede yi la sa tegu mooy julli julli beneen jëf bu ñëw julli moo koy tungoom woo tax ëllëg yowmal xiyaam bu julli baaxee ñu ni lépp baax na waaye bu julli baaxul dara baaxul moo tax tamit ñàkk julli baaxul kon su ko defee ñu xam ni ñàkk julli baaxul ni sëñ Mansoor si sëñ Abib si nettali naka fii ni sëñ Mansoor bin ko ne waaw nanu wax si julli yi dañuy déedéet ñii julli nañ leen bàyyee wax si ñi julliwul waaw julli nañ leen bàyyi tey tey wax si ñi nga xam ne julliwul te boo demee si alxuraan rek ci suratu insiqaax am na fu mu fay waxee naa wa amma man uutiya kitaabahu wara shahrihi fa sawfa yad'u subura wa yusalla sahira mu ni ëllëg am na ñoo xamante ne demee ba taxaw muy bis penc ba yàlla di àtte jaam day am ñoo xam ne seeni téere jëf dinañ leen ko jox ndax léeg-léeg da dégg ñu naa yal na ko yàlla jox téere jëfam si loxo ndey mooy fa amma man uutiya kitaabahu bi yaminihi fa sawfa yuhaasabu xisaaban yasiira képp koo xam ne ëllëg dem nga yow man xiyaam ñu attale jox la sa téere jëf sa côté ndeyjoor sa loxo ndeyjoor boobaa yow taxe nga sag rek dina yomb te ëllëg soobee yàlla yàlla dina la bégloo dëkkal la àjjana ji nga xam ne ñun ñëpp moom la ñuy ut waaye ki nga xamante ne nag euh, daawul julli bu ëllëgee téereb jëfam maanaam dañuy xar ab xolam la xar jël loxaam dugal ko ci mu génn si digg ginnaaw gi si diggante ñaari mbagg yi su ko defee nag ñu jox ko téereb jëfam maanaam mooy koo xam ni perte na daawul julli mooy ñi nga xam ni ëllëg seeni téere jëf dañ leen koy jox ci seen càmmañ moo tax mu ni wara a sahrihi seen loxo la ñuy xar seen xol jaarale ko seen biir mu génn sa ginaaw ko kon loolu li koy waral tamit ñàkk julli ak sàggane si diine loolu yàlla nañ si yàlla musal boobaa nag ku loolu ërwee walxiyaasi billaahi ëllëg fa ngay dëkk rek mooy sawara jaxanama ñun ñëpp yàlla nañ si yàlla musal yàlla na nanu yàlla jox suñuy téere si sunu loxoy ndeyjoor te musul nu si ëllëg ña nga xam ne seeni ñu ngi koy jële si seeni ginnaaw moo tax ñàkk julli wóorul te te jëf yëpp julli moo ci gën a màgg waaw jëf yëpp julli moo si gën a màgg wasalaatu axsamuha waaw wasalaatu axsamuha baxda sahadatayni man aqaamaha faqad aqaama diini wa man diini waaw kon jëf yëpp jullee si gën a màgg képp koo xam ni nee nañ taxawal nga julli taxa si taxawal nga diine waaye képp koo xam ni bàyyee nga julli rekk bàyyi nga diine kuy julli jullit nga ku jullit doo julli képp ko ko saxal man aqaamahaa faqad aqaama diini képp ku saxal julli rek diinam sax diinam sax na waaye wa man tarakahaa faqad taraka diini képp ku ko bàyyi tamit coow la nekk rek waaye amoo diine amoo diine su ko defee loolu tamit yal nañ si musal yal nañ si musal ñu ko bàyyi xel bu baax ah mu ni ba dugu duggugun si julli gi ba tey duggugun si <coughs> julli gi su ko defee rek xam naa rek allah su ko defee ñu xam ni tamit ah, la bisu tam xarit mu mal tamxarit tamit képp koo xam ni yàlla fekkloo nalaka war nga sant yàlla bu baax am na ñoo xam ni fekke woon nan ka heure bi daaw te ren fekku leen fi daanaa dégg góor gu baax doon daan ko wax muy sunu bay Birane Touré daana wax ni nee na fekke moo waral njàmbat ndax ñi fekkewul jàmbatunu kon ñun ñi ko fekke nag li nu war mooy ñu góorgóorlu bu baax def ci ay ñaan maanaam tamxarit bari na yun ci digle te jullit nag saa su ne day soxla ñaan mooy bis bisab xarit ak bis bu bisab bisab xarit su ko defee ñu fexe gis nga sunu sunu sunu diine ji nañ nañ ci gën a góorgóorlu islam boo ci génnee ñaan dara desatu ci su ko defee tamxarit yuñ ci digle bari na te lépp loo xam ne digle nañ ko ci tamxarit ñaari boo ko xoolee ba xool ko rek même bu ko mag ñi doon bi ko mag ñi doon def ak yu nin ko indee yëpp benn bu ci nekk boo demee di nga gis koo xamante ne ci rek am na ci foo si mën a sukkandiku ci hadiis walla ci alxuraan xam ni lii moo tax ñu doon def lii waaye léegi dem na ba mal ni am na si ñoo xamante si dañ koo dañ koy gàttal gàttal ba mu bëgg xañ nit ñi ay tuyaaba même tamxarit war nañ see woor ah, ku ku man ku ko man du force baax na ak yeneen yëpp ku ko man baax na du force waaye nag ah, lii rek lañ see war a def kenn waru see def leneen yenente bi nii la ko doon defee mosu see def lu dul lii yenente bi du ñun gis nga yenente bi alayhi salaatu wasalaam du ñun yenente bi mu yàlla kif-kif moom la ñuy roy mooy sunu royuwaay lépp lu mu doon def dañ koy def luñ sa man lépp loo xam ne gaa yi baax yi topp ci moom def nañ ko jàngale ko ku ko mën a def nañ ko def am na ci ñoo xamante ci ku leen di déglu sa diine boo amul sens lu bari dina manqué kon diine boo ci génnee ñaan dara dara desitu ci waaw ndax dégg naa fa ni benn waay bu doon waxtaan rekk ci jumaay ji ah, xañ na yu ci bari maanaam nit ki lépp loo gisul neer gisuma ko walla tamit benn lépp loo xamante ni même gisoon na yenante bee ko wax te nga gis koo xam ni moo la gën a jigéen yenante bi xam si yenante bi loo xamul ah kooku lam lam la muy la mu wax rek dañ see dañ see war a war a war a war a war a war a war a war a roy ndax sunu mag ñi kenn gënu leen a ragal yàlla kenn rawu leen kenn dàqu a jaamu yàlla moo tax soo ko defee am na ay ñaan yu si mag ñi doon def ku ko man def ka hasbi hasbi allahu wa nehmal wakiil wa nehmal mawla wa nehmal nasir حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النذير loolu mag ñi daanañ ko def sab xiina maratin juróom-ñaar fukki yoon nga toog yor sa kurus nga jàng ko ba nga jullee gee pare nga toog jàng ko juróom-ñaar fukki yoon boo ko manee baax na yow dong wala benn bu ko bu ko sa njaboot mënul ngay nga koy wax ñu lay toppandoo da yëpp ñaan la yàlla may na la kay nga fekke at mi kay yow war ngaa sant yàlla waaw war nga sant yàlla nga julli ba pare toog bàkk yàlla loolu kay doy naa sant yàlla moo tax ah, jokk bokk gën si def kenn ku si nekk xam na ne ak mbokk kay yàlla rëbb na ko koy yàq koo ko mën a jokk kay baax na sayti borom xam-xam borom xam-xam kay liñ si wax nanga nekk koy xam wala na nga nekk xam wala ngay déglu borom xam-xam ah ngay jàng ah wala ngay jàngulu waaye bul bañ borom xam-xam. kon kay seeti si borom xam-xam kay loolu saa su baax na muy tamxarit bu lu tamxarit teral nitu yàlla teral koo xam ne dañ gis nga ni kii ah, ab jirim la nga mën kaa teral teral ka mooy lan dimbali ko loo ko man loo si man si saa su muy tamxarit bu lu bu lu tamxarit tamit kenn ku si nekk xam ne loolu baax na beneen bi liñ si doon wax maanaam sangu sangaay muy cangaal cangaayil farata nga xam ne loolu tamit nit ki chaque jour day dëkk moom même loolu bu ñu la nee def ko si tamit même même loolu tamit yiw la rek yiw rek seeti ku feebar li si addis wax ah ñu ni jibril alayhi salaatu am na ay ay quelque ay quelque yiw yoo xamante ne si bëggoon na yàlla def ko doomu aadama ngir mu man di dox ci loolu te loolu saytu gu feebar sa la bokk kon loolu bu ko ne buñ ne baax na si tamxarit tamit saa su ne la baaxee moo tax tamit kooku mën na def baax na beneen ñaan bi si des tamit mooy ah, ñaan gi nga xam ne si kooku man jàng ko juróom-ñaari yoon tamit baax na mooy subhanallahi mil al misani wa muntaxal xelmi wa mablaqo rida wa xadda da nehami wa sinatal xarsi la man ja wala man ja min allahi ila ilayhi subhanallah xaddada chaqin wal watari wa xaddada kalimatillahi taamati kulliha asaluka salamata kullaha bi rahmatika ya arhamu rahimin wala xawla wala quwata illa billahi aliyil azim wa huwa azbi wa nehmal wakilu نهم المولى ونهم النسير وصلى الله على سيدنا محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه وسلم كلما سكر ساكرون وخفل عن سكره خافلون نيان غتي من امنا نيوكو سي جانغ جوم نيار يون بو بري nga تكس اللهم اجعلنا ممن طالت احمارهم وحسنت احمالهم وجهلت الدنيا في ايديهم لا في قلوبهم نيان غي تيميت بوكو ما نيغي جانغ كي نيت يون am na si ñoo xamante ni si sax daan def comme suba bu nu wooree ñu julli ñeenti ràkka ràkk bu si nekk ñu jàng euh, faatiha ak fukki ixlaas ak juróom euh, rek lépp rek def ko addu yenante bi sallallahu alayhi wa ñaan si seeni aajo ñaan si euh, mucc ak mucc la ñaan tamit yàlla defal la sutura ci bépp anam lii kay baax na kon ñaan nit ñi bu ñaan kenn ku ne xam ni ñaan jullit ñaan lam kon ñaan yi bu nu ko kenn xañ waaw yi ñaan daal ku ko ñaan boo si amul tuyaaba moom doo si am bàkkaar beneen bi tamit eh, bari na si ay histoire yoo xam ne borom xam-xam tamit ñu ngi ko siy te yëpp dañ ni mu ngi daje ak bisab bisab bisab bisab bisab tam kon nga xamni kay eh, manam ñaan mom si bépp anam la mui muy bisab tam xarit ak budul bisab tam xarit waaye ku yalla may dal nga man sey ñaan yalla may dal nga fekk anmi ñaanal yalla lo ci man ñaan ndax nga fekk waat na jamono bi ñu tollu kat wax dëgg yalla ñaan mom baax na si jamono waaye jamono bi ñu tollu la gëna la gëna lan ko soxla ndax am na si ay doomu aadama yoo xamante ne si ëllëg yàlla dig na leen àjjana te àjjana jim leen dig maanaam sa lëm leen ki digee muy ñaan gi doon ñaan seen borom di julli ak di jóg teel a jóg di ñaan yàlla ak di màngo guddi yi waaw ndax demal ci benn saar rek bu ñuy wax sóorutu sóorutu sóorutu saariyaati sóorutu saariyaati am na si ñoo xamante ni si yàlla digg na leen fa ay àjjana digg na leen fa ay àjjana te àjjana la tax ñu am ko maanaam mooy dandoon ñaan yàlla di yow fajar di màng guddi كفنا يالله نغفي وحنا إن المتخين في جنات وعيون آخذين ما أتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجهون واو أمنا سنيو حمني بودي توتي لندون نلو واو توتي لندون نلو كانوا قليلا من الليل ما يهجهون بنت دي توتريك جوب مانغ بودي di julli di julli di julli ñe beneen kuréel bi wa bil ashaari hum yastaxfiroon am na ñoo xam ne si fajar njëll di jóg fajar bokkul ak ñun fajar gi nga xam mooy fajar ak salaatu ndax dañuy ki jóg fajar ak heure bi ni salaatu nga jóg di paatax paatax yi yow yaa biddanti waaw yow da ngaa biddanti da dañ Alaaji Abdou Dabaax daana def yal na yàlla yokk leeram mos dégg ñu ñu wax benn histoire ñu naa bu xasee julli gee tuuti rek day daal di tëdd tuuti rek tuuti rek daal jóg u jógee nag daal di maa ngi guddi gi ba tey am na si ñoo xam ne tamit bu nu tëddee tuuti rek jóg nañ commencé julli am na ñoo xam ne bu nu tëddee fajar ñu teel a jóg kon nanu nanu nanu bàyyi xel loolu kaanu xalilan mina layli maa yahjahoon wabil bil ashaari hum yastaghfirun waaw ni la tax yalla dig len aljana ji ci li do nga daan ka amee bu tëddee tuti jog commencé ma ngou dig di julli benen kure bi tamit fajar dañuy jog di jéggulu sen borom waaw na teelu be naa teelu be taalibe warta bi denti kon ki har banu salatu nga wadda di patax patax yi yow da nga denti wa kon lay ci tëdd ba bi set nak ki nga xamni tuti la ci guddigi jóg maa nga guddi gi ak xool ki nga xamante ne si fajar la jóg di ñaan boromam yàlla ni ñii daal ëllëg bu ëllëgee dinaa leen jox ay ajjana yoo xamante ne si fa la ñuy dëkk ñii lii la leen tagg li leen tagge jéggulu seen yàlla di ñaan ak maa nga guddi gi di naafila kon bu nu kenn xañ tuyaaba bu nu kenn xañ tuyaaba moo tax sunu mag ñi yal na yàlla fay leen yal na yàlla fay leen beneen bi si si si si Ya, manam ngeenelu ngeenelu sikkar rek ngeenelu ngëneelu bàkk rek motax yow mi tamxarit jot nga reer ba reg wax deug yàlla tëdd di nelaw reer ba reg tëdd di nelaw ak yaam nga ci da reer ba reg taxaw di way wax deug man dahana ñaar ni bo done analyse rek kan mo ci gëna dalam xel waaw kan mo ci gëna dalam xel ndax yenente yàlla yunus kenn ko ci nek xamna ni ni ko alxuraan jàngale ak ni nu dégg borom xam ne di ko nittalee nekkoon na si ay jafe jafe-jafe yàlla def yàlla nattu ko ci kartanam yàlla def benn jën daal koy wan ñu ni sax ay lëndëmi lëndëm la boole lëndëmu guddi lëndëmu géej lëndëm mu biiru jën waaw na alxuraan dani fa naadaa fii sullumaati waaw kon sullumaat boo xoolee ay jam jamuxu la ay lëndëm yi lëndëm la boole aw jën wan nag bëgg jën ma wan nee yonent yàlla yunus amul benn benn benn benn benn pexe benn pexe amu ko lu dul rek bàkk yàlla bàkk yàlla rek bàkk yàlla rek boo demee suurta andiya noonu la ko fa waxee da doon bàkk yàlla rek ba ba jën wa ba jën wa gëx ak waaw mu ngay wow boromam fa naadaa fi zulumaati fekk mu ngi si ay lëndëmi lëndëmi lëndëm waaye muy oo yàlla rek an laa ilaha illa ant subhanaka inni kuntu min alsalimin waaw moom la doon sikar ñenn ñi ni benn fan la am si biiru jën ñii ni juróom-ñaari fan ñii ni ñeent fukki fan ay waxi wax ñëw na si waaw sikkar googu mu doon sikkar di sàbbal yàlla waaye si loola sa la yàlla sukkandikoo jën wan jën wan gën gën wa astafurlaay gën wa gëq ko mu génn waaw kon tamit nanu fexe ñime sikkar mooy ñime bàkk yàlla waaw boo xoolee li mu wax léegi rek kaanu xalilan mina layli maa yahjahoon wa bil ashaari hum yastaxfiruun waaw jóg fajar teel di bàkk sa yàlla li bàkk yàlla lum mu mënul amul di déggul yàlla lu mu mënul amul kon yonente yàlla yunus mi rek mën nañ sa jële exemple ba ki jën wal wannee rek lam doon bàkk ak lam doon wootee doon woo yàlla an illa anta subhanak inni kuntu min asalimin yàlla amul benn buur bu dul yow tudd naa sag la man mii damaa bokk si tooñkat yi te ñun ñëpp amul ku mucc si tooñ waaw ñun amul ñun doomu aadama yii ni nu jamono yi ni nu mel ni nu taqee feebar xol yi nekk feebar yi nekk sunu xol yi feebar yi nekk sunu yaram feebar yi nekk sunu aajo yi waaye loolu kenn ku si nekk xam na ni lenn mënu ko fee jële lu dul tuub di jéggalu yàlla di bàkk yàlla ah dongaa ko fi mën a jële kon am na si yoo xam ne si bunu ko kenn xañ nanu gënu góorgóorluwaat si yooyu te xoole yonente yàlla yu Yunus بودمي سور سافر صح دونك فبحنا فلولا انه كان من المستبحين لا لبس في بدنه الى يوم يبخسون مونا يانت يالا يونس بودون لي مودون سبال يالا سي بيرو جن كون بيرو جن بو فلاي صح با يوم الخيام كون جين بيرو جن بو موي دون باميلا القران تو فلولا انه كان من المستبحين فلبس في بدنه الى يوم يبخسون bu dul woon yan li mu doon bàkk yàlla moom yonente yàlla yunus su biir jën wo kon jën woowee biir bo biir biirab jën woowee fa lay nekk ba keroog yàlla di dekkal jaam kon biirub jën bu mooy doon xabroom kon su ko defee am na si yoo xamante ne si bu ko kenn xañ kenn ku si nekk dana tollu jamono bu doy waar yiwu daal man doomu aadama du nangu ko mag a xañ bu nu defee li nu war suñu wàllu jaamu yàlla mag ñi boo gisee yi ñu teg nii sunu kon yow mi nekk taalibe Seex sax yow bu la yàlla dimbalee yàlla ñu tënk la am yooyu sikkar sax war ngaa sant yàlla war ngaa sant yàlla kon su ko defee yu si bari nan koy bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax a baax bis bi bisab ñaan la lu si waaye man a ñaan nañ ci ñaan yàlla teggul ñu jafe-jafe yi nekk sunu xoli ak jafe-jafe yi nekk sunu yaram ak natt yu nu yàlla teg te dara warulu ko te ñun ñoo ñooy ñun ñooy ñi nga xam ne ñun ñoo ko def su ko defee ñu ngi gërëm ñëpp di leen siyaara di jéggulu si guddal bi sax gudd na waaye ñu ngi koy jéggalu xam naa tamit leerul ak nan ko bëggoon a leerale tamit amul kartan waaye luñ si wax muy lu dëng tamit ngeen jubbantil ñu ko ñu ñaan yàlla tamit lépp luñ si dëngal yàlla jéggal ñu ko ngeen jéggal ñu ko te xam ni dañ see yéene woon rek jariñu si xañ li ñuy wax añ na li ñuy wax ñu ko gën a xam ñu ngi ci biir di nu dégg kon loolu lépp tamit ñu xam ni rek waaw ya, su ko defee ñoo ngi jéggulu ci xamna dog-dog bobu ñoo ngi bal ñepp àq di leen baal àq ñaan nan yàlla boole bal di jéggulu timit kilifa yi nekk ci biir yépp rek ñu ngi leen di jéggulu ñen ko waxé won rek di ñaan sunu borom xasa wa jalla ñu fi bayiko ñepp yalla yalla na leen di jéggal leen dana xam ne ñooñu ñëpp fekke woon nañu tamxarit heure bi daaw kon tamit ren fekku leen fi kon ñun ñun ñi nga xam ne ñun la fi tamxarit fekk nanu gën a góorgóorluwaat def ay ñaan bu baax a baax a baax a baax comme nin ko waxee woon sànq yal na yàlla dooli jàmm bu baax a baax a baax wa ma salik xalala bi xasiis